yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu topp yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara eh, di am mbégte ñëwaat fii tey ci kanam sunu baay baay Bira Fall moom Serigne Souhaïbou Mbacké ci ndigalul sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mi fi nekkal sëriñ bu waaye ci kilifteefu sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne moom la dénk lu ci màggal gi comité d'organisation bi nga xam ne sëriñ Abo moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké bu moo ko jiite ànd ak turandooy sëriñ Souhaïbou yëpp ñu ngi nii ànd ak sëriñ bu Mbacké moom Daaru Salaam ànd ak sëriñ bu sekk Anis mi nga xam ne moo jiite daayira bi ànd ak sëriñ bu Ndiaye ak eh, mbolim ëbooy yëpp rek ñu amon ndigal tay ngir tew fi ci kanam suñu bay bay bi rafal mu Serigne Souhaïbou bu nga xamne ne ku ko xam xam ko Serigne Souhaïbou bu ñu yàgg lool mu don docteur bo xamne ne na ci docteur yi yag lool Touba jaxaso ak Serigne Souhaïbou bu fasiyene waxtaan ak mom ci fànn gogou ci digganteem ak Serigne Souhaïbou bu témoignage mëna mu sum leer man rek

sëñ den ko sëñ den moo fa doon indi ay ndongo si jamono yooyu mu ñëw benn bis mu bind leen ordonnance après mu ma ñu ngi koy def ñoom bu ñu daan départ rek li li war si malade bi yëpp li war si dong bi yëpp dañ koy dañ koy dañ koy préparé amul mu dem tu ñëw amul lii amul laa léegi munu mën luñ ko def mu bind ko si wolof mu wolofal ko tekkal ko arab mu dem naatali sëñ bi ñu sant ko lëre sa jamono si si boobu bunt bi si Mouhamadou sëñ sëñ si sëñ dan la dépare la départ sëñ dan dan bu so ñu nekk si ba ma dem fa ma demee si moom daanaka docteur yi yi fa yi jaar Touba yëpp su docteur Fall bi nekkoon Mbacke la la la la la ñuy xaw a fekk tuuti ñun si jamono sax waaye fekk wuñu si di jëflante léegi nag fonk santé fonk boo xam ni yaram boppam sa taxul waaye boo boo dee xale bii gone gii. xobu niimaa du gis du ab napp bi Dakar koy dindi bu dee tàkkusaan du fanaan bu dee timis du fanaan du fanaan fii Dakar lay fanaan amul amul nañ xaar essence wala nañ xaar lii wala nañ xaar lee déedéet te bala ngaa dem dana téléphoné maanaam lu ñuy def li régulation li ñuy système de régulation nga xam ne ngaa yónnee malade bi mu xewee biñ ko biñ ko adopté sa yàggul te dafa ko ni mu wax demee fi ngay jógee dana woo fa mu jëm bañ a xam am na place wala amu fa maanaam rawatina nag ku mel ne góor gi jaw waaw gynécologue la woon boo xam ne hôpital bi bari def na ko Dakar la nekkoon hmm. principal la mujjoon ci hmm. administration bi ba retraite dèjà ñëw Touba yëpp hmm. jëflanteeg ñu bari man mii mos na ma fa yebale ko malade mais bi ma egsee malgré li ma nekk santé nekk ma fa di lijjanti ay kayit ak ay facture ay yeneen déedéet ki ma fa yóbboon entraîné bi génn kenn laaju ko ñaata la wax fay wala fan la nekk wala fu mu jóge bi mu ñëwee si salle bi fekk ma toog daf ne ana ko jóge si ku tedd gi bëgg jaw ana ko jóge baax gi ñu ko mu ngi nii mu jàpp si loxo malaat bu dugal ba sànq ba te bu doon yeneen si yeneen service am noonu lay demee gis naa colonel yoo xam ni toog naa mu toog ay colonel santé toog colonel bi mu ne colonel kii mu colonel bi ni ko sama logement bu jot naa si waaw nga xam ni daf doon lijjanti waa santé lu ko waa santé lijjanti lijjanti leen lu ko ëpp léegi bu la oowee même boo doon entraînement ji sax dama bëgg wax ni même bu la fekkee nga dox bu doon soxla bu fekkee li nga sol mën na fa dem joxal ngay jël ses bagages. waaw boo ñëwee da nga fekk appareil da nga fekk thermomètre di ñu seet tàngoor da nga fekk bo boo bindee ba pare balaa kayit bi génn dañ dañuy xool armoire à côté donc mën nga fa fekk li nga bind. waaw garab rek bindee ko tubaab bind ko wolof. waaw bind ko wolof waaw léegi léegi léegi mënaat bi léegi lu mu soxla yëpp da koy jël. nga xam ni dafa dafa bu nekkoon ministre la sante organisation bi leneen la leneen la ñu wax ma booleeg moom poste santé li ma gën a booleeg moom tamit poste santé Mariana bi ñu koy ubbi dafa sàkku ma dem fa sëñ Abdou Khafour boole ñu jàpp si sëñ Maodo boole ñu jàpp si demande bi ñu ko bindee docteur bu fa nekkoon def kii.

booba eh, Madiana Sumpka eh, melul nii ndox mi melul woon nii waaye waaye waaye waaye ñëpp na dispensaire suñu si yëpp suñu seex say ñëw ñaan fa seen blaat ñëw ñaan fa ñëpp ñëw ñaan fa te colère gi nag moom colère gi moom passé na foofu man am naa ci moom loo xam ni mun naa ni est-ce que du man kenn parce que weeru koor ñuy joxe suukar Madiana tëb ma defe ni fàtte ma defe ni waa daako doos moom moo jox comme maa ngi logé Darou Khoudoss ñiy jox Darou Khoudoss defe ni comme maa ngi xëy poste ba supp ga foofu lañ ma wax joxe ñu bind ñu mu jàll vague joxe bi jàll xamul nu mu hmm, yëg ni jox joxuma fexe waaw daal ba yëkk legi bi bis bi mu ñu wone gannaaw mu tok ni am gos sugar yu ma teg sama loxo ko gos sugar ma tek sama loxo ni nii xam nga tal do tal da si suba si si gud gi la si suba ci eh, da nga tok di ñaan wala nga toog du firgi daal hmm. si nitu daayira moom doo firgi maam Balla ni ma dra su ko su ko teg sa loxo yow yaa ko moom hmm. sëñ bi moo ne woon ku war a njëkk du mujje waaw hmm. sama baay jóge na ndax ñëw fii mu yóbbu ko ba si moom ñu toog waxtaan mu dénkaat ma te njabootam tamit noonu lañ ma jàppe boo ko boo koy jegee daal du la wax te dana soppi waaw da gis rek nooy nuyoo dana xam nga nu mu la nu mu la nuyoo nooy waxee xam na nu mu la ci xam na waaw xam naa ne moom nit ku baax ni moom moom baaxul lu ma koy gis waxul lu ma gis te te lu koy naqari neexul xam. dana bari woon ay ay docteurs yu nekk Touba yu yu jaxasoo ku si mel ne ku si mel ne doyen Anis ku si mel ne Abdoulaye Dione ak ñeneen mais waa Mbacke yeeg yëpp maanaam docteur si boppam dafa mel ne dafa mel la dafa am équipe te ku ne xam na li nga wax def nag xam na yëpp la xam yëpp xam na grade yi xam na yëpp la xam. malade bi ne pas ko malade bi malade affaire la malade bi da suivre sax da suivre malade vous xasse dugg si rek parce que faut foo toll dina Malade, xam nga xam nit ko fever fo nga xam nit ko normal. nit quoi fever normal feebar hmm. normal waaw xam nga xam nga géwal mën naa toog dégg ñu tëgg dara mun aa ah, kii de nii la ñuy tëgg nangam ma ne ko jaan waxtu saxal sa dem si dee wala a nangam nangam nangam c'est parce que da nga xam nu ñu tëgg boo déggee fu ñu koy tëgg nga ne ah tëgg bi manqué na waa léegi boo xam ne xol nu muy noyee wala dënn xol nu mu fettax tak tak tak wala tik tak tak wala tak tak bu mu si def da nga xam moo tax ngay dëppali fekk xam nga tëgg bu normal ba nan la mel bu dee tamit noyyi minute bi li nga si def booy dugal muy gé mu mu dugg booy génne wàcc parce que yi day ubbeeku bëgg see ko asma noyyi normal allé mu normal nii doo ko dégg doo dégg mu naan.

docteur waaw te gëm loolu gëm loolu toujours nit ñi yàlla waaw ah. loolu daal vraiment yéeme na daal yàlla na ko suñu fan fayal rek. wax dëgg yàlla lii nga fi wax ci Serigne Chouaïbou ci dimbali gum daan dimbali jàmm yàlla yi doyoon na sëkk wax nga ci lu ama am solo ci sa diggante ak moom rawatina ni mu daan dimbalee jàmm yàlla yi eh, te loolu mooy fexe ba ñuy dund ndax nit bu tawatee. day mel ne dootu mën a jaamu yàlla dootu mën a def dara ci li ko yàlla sant waaye fexe gi muy fexe ba nit ñi di wér nga xam ne loolu lépp day dellu ci ni ma waxoon léegi rek yërmande ju bari ji ak doon gum doon xalifa bi yàlla ci kaw suuf te mat ko sëkk doon ci liggéeyal sëñ Tuubaa itam ginaaw bu mu ko doonee ci fànn gërëj muy fànn lislaam bi loolu lu am solo la loo xam ne indi nga ci lu lu ama am njëriñ loo xam ne mel na ne wuutu nga ci ñu baree baree bare ci wax gi kon ñu ngi la ci sant bu baax di la gërëm bu baax ci kaddu kilifa yépp serigne Abou Mbacke mi ñu andal mu daru salam mi ngi jotli kaddu yi cant jëm ci yow ak mboolem sa njaboot euh, kóllëre gi nga xam ne it moo dox sa digënté ak serigne Souhaïbou ba li lepp am ci nga diko ko ba batay ak mbolam njabot gi ñu sant bu baax te di la ñaanal suñu borom yagal la fi lool wéral la barke khadim di sant njaboot gépp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.